Euh, waaw Michel sar secrétaire général des ex contractuels de la Sénélec ma tënk ci wolof comme ni ko waxee ci français bi dañu nekk euh, ay ndaw yu doon liggéey Sénélec pendant des années ñi def nañ fi fukki at ñi juróomi at ñu jékki-jékki rek Sénélec arrêté ñu mais ci biir loolu euh, Sénélec dafa amoon ñeneen suñu yeneen collègues yoo xamante ne jël nañ leen mooy Pape naka Matar Cissé bu fi njëkkoon nekk directeur général jotoon na intégré 493 contractuels faut ngeen xam ñun 700 et quelques. la ñu ne léegi bu c'est intégré ñooñu pour mu des suñu suñu de 187 personnes ci lañ ko nommé ministre mu dem mu jógee Sénélec dem ministère Pape bi tey bu mu aussi nangu pour que dossier boobu ñu réglé ko ba mu recevoir ñu le 6 août recevoir ñu le 10 euh, décembre mais bu ñu recevoir moom lu ñu xamal mooy bañul pour régulariser ñu waaye nag dossier bu métti bu toll ni bu 10 parce que 187 personnes du benn nit du ñaari nit il faut que conseil d' administration jox ko aval ci loolu. les conseils d' administration réunir na depuis le 27 décembre euh, mat euh, Mouhamad naka Pape Demba bi tey depuis bon ba léegi depuis le 27 décembre dégguñ ko waxuñu dara woo ma man mi Michel wool suñu médiateur mam Matar ONG Jamra donc depuis boobu nous léegi ñu ngi leen di déglu pour xam quota bi lan la parce que le Sénélec war na embaucher loolu xam nañ ko 121 départs à la retraite mais euh, hors de ces départs il y a des postes vacants on peut estimer même le besoin de la Sénélec à plus de 300 agents donc lu tax ba léegi Banque mondiale autorisé na pour mu pour combler le gap de son personnel donc léegi ñun ñuy laaj pourquoi DG depuis boobu ba léegi lan moo tax revenir ñu lu tax revenirul Mame Matar te loolu aussi ñu gis ne parce que waruñ ci woon yegg nous nit boo jëlee boo jëlee engagement ak ay nit donc nous yeneen di ci jóge di ci ñëw da nga ne lu ma waxoon daal donc lu pour euh, aussi di ñaan euh, suñu appel le directeur général en même temps que euh, Matar Cissé ñu mun ci def dara. comme lu ñu fas yéene def peut-être waxuñ ko dès le début parce que dañuy dañu lii kii la phase d'étape la donc bu ñu génnee ci lii. si bu amul benn réaction le mardi prochain je vous invite au niveau de la direction générale en face la rue Vincent en face la direction nous fa tenir un sitting pour nag won askan bi ne nag Senelec dafa am lu mu warloo ak ñun donc am lu lu mu waxtaanoon ak ñun ba pare xaw ma da ci bëgg a génn wala daal am na lu ci laxasu donc pour alerter l'opinion publique donc suñu plan d'action bi tey la commencé mais ñu ngi ñaan yàlla nag euh, balaa ñuy yegg le mardi prochain pour sitting bi war a am au niveau de Vincent euh, le DG mun ñu mun a woo suñu médiateur Mame Matar Gueye Diamra wala le ministre idem woo ko ñu mën a toog waxtaan te ñu trouvé ci une issue heureuse di dossier parce que ñun aussi euh, histoire bi gënaluñu waaye nag boy boo amul li nga bëgg nag il faut nga uti ko donc waaw comme nga comme ni ngeen ko comme ni ngeen ko gisee ni ñun doon nañu ay ndaw yoo xamante ni vraiment euh, dañu jël suñu temps yëpp consacré que Sénélec jox leen ko parce que am na ñoo xamante ni def nañu 5 ans ñi def 10 ans ñi def sax même 20 ans

direction bi respecté ay engagement am ñun ñu delluwaat suñu place liggéey si jàmm ak salaam euh, bokk ci ñi nga xamante ni vraiment ñoom ñoo téye kër gi loolu rek lañ leen di ñaan euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullah